asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ak contentement siwaat yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo site bu mag boobu nga xamante ne mooy Ñooxi TV tey nag nu def benn doxantu bu am solo newoon naa leen man damay doxantu te du ma dem ci n'importe kii nu góor góorlu am koo xamante ni fexe nañu ba fekk ko fi mu nekk ngir mu may ñu waxtaan woo xamante ni yaakaar naa ne yéen ñii seetaan dina leen jariñ di koo xamante ni kilifa la di koo xamante ni dafa yëngu ci wàllu ñaan waaye di koo xamante ni dafa am xam waaye di koo xamante ni dafa wuuteeg ndax coow li bari na yi fi jaxasoo na waaye nag dañoo bëgg a indi koo xamante ni tey jii ay leeral yu am solo lay indi waaye indi ay xam-xam yoo xamante ni dina jëriñ askan wi ñu seet si ko tey muy suñu xarit di suñu lépp di sëriñ yu Nourou laay sëñ mi ngi lay siyaar. waaleykum salaam wa maa ngi lay fay bu baax sëñ Moustapha. Mm-hmm. Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp. ak waa àdduna bi yëpp fu waay mën a nekk te di ñu seetaan. Euh, ci sit bu mag bu am solo bi macha allah di suñu site. Mhm. Euh, di Ñooxi TV. Mhm. di ñaan yàlla def ci tawféex ak mhm. yokkute ba mu law ci àdduna bi yëpp incha allah. ñu ngi lay fay bu baax. sëñ bi fi mu ne affaire bi nag man fi mu ne nii xam nga léeg-léeg gars yi ne ci nuyook nangam mais da man dafa am loo xam ne damaa bëgg mu gaaw ndaxte askan wi foog ñu am ci leeral. ndax coow li bari na sëñ Assane Nourou lay numéro am laa soxla coow li coow li coow li coow li dafa am loo xam ne da huwa la mm. mais huwa sëñ bi huwa laa bëgg a xam parce que huwa taay mi ngi yëngal dëkk bi huwa huwa huwa wax ma ci huwa. waaw huwa moom am na solo ñu di ci di ci wax. Mm. waaye laataa ñu ciy wax. Euh, dañuy wax ne dafa nekk lu am solo. Mm. maanaam ndax day faj lu jëm ci wàllu ngóore. Mm-hmm. te mu nekk loo xam ne maanaam mën naa ne àdduna bi yëpp loolu day seen tawat. Mm-hmm. moo xam fii ci réew mi la moo xam ci bitim réew ci réew naar yi ba ci chinois yi fépp foo dem rek. Mm-hmm. problème mu ngóore mooy seen jafe-jafe. Mhm. moo tax ñu gëstu ko ba jàng ko indi ko. Mhm. bi mu doonee jafe-jafe ba noppi dafa doonaat amaat beneen jafe-jafe bu nekk ci biir jafe-jafe boobu mooy gis ku la ko mën a fajal. Mhm. waaw euh, loolu dafa nekk phénomène boo xam ne mën naa ne daal. laal na ñépp. su ko defee nag moo tax ñu indil leen ko. Euh, te loolu laataa ñuy wax xóo bi ak li muy faj ak li tax ñu indi ko dañuy njëkk a nit ñi. ndax gannaaw ngóora mi ngi lor askan wi. Mm-hmm. ñu moytu bu baax a baax a baax sàmm suñu wér yaram mm-hmm. ak xam nu ñuy jëfandikoo suñuy soxla. parce nit ñi fi ne ñu jot naan. lool mu ngi toj dëkk bi de parce que koo jug mu damay faj ngóora lu ne ay reen ak ay nàngam ak lu ne ku ne di faj lu ne lu ne lu ne sëñ bi loolu doy na waa waaw loolu lépp bokk na ci li ko gën a yokk. Mm-hmm. moo tax ñun bu ñu defee suñu vidéo dañu koy leeral. def détail beneen bi itam képp kuñ ci convaincre. ba mu bëgg ñoo gis ñun dañ lay wax ne dañ ñuy seet si. man amuma ay boutique mbaa may def fenn représentant mbaa fenn. parce que dama jàng may def respecté ko. moo tax ku ma soxla ba woo ma dama lay wax da ngay ñëw ba fii ñu consulter la. ndax nit bala nga koo jox garab. war ngaa xam lan moo ko dal. Euh, bu boo ko xamee ba noppi. bala nga koo jox garab war ngaa xam yan. Euh, jàngoro mooy daw ci moom mm-hmm. pour nga mën a xam garab bi dosage bi li nga ko ciy jox. consulter ko consulter ko. Mm-hmm. waaye waroo jékki-jékki rek jox ko garab. Mm-hmm. waaw ndax mën nga ko jox fekk kook ay feebar. mu jëlee garab bi noo xam waru ko jëlee mu far yokk sax jàngoroom. Euh, am na ñoo xam tamit dañoo feebar fekk ne maanaam jaruñoo sax jox garab. am na noo leen di conseillé ñu xam nu ñuy lekkee ak nu ñuy sëyee rek. daanaka ñu daa di delluwaat fañ nekkoon. Ah, loolu lépp nag mi ngi aju nag ci consulté bi moo tax ñun. am xaalis bi neex na waaye du moo ñu yitteel ci doomu aadama wér-gu-yaramu nit ñi moo ñu njëkk a yitteel avant ñuy am ci ñoom xaalis moo tax dañ lay wax nga ñëw ba fii seet suñu léegi nag dama cee bëgg a baaxi nit ñi jox leen ay conseil gis nga euh, góor ñi ñu ci bëri doonatuñ góor léegi ñu baal ma ci waxin mi te dafa bëri yu ko waral waaw lu ko waral sëñ bi yi ko waral bokk na ci ni ñuy jëfandikoo suñuy soxna benn ci bu njëkk ci ma bëgg a leeral hmm. maanaam sa soxna ndax soxna rek ci laa mën a joxe misaal duma ma jox soxna ci du ma joxe misaal ci ki nga xam ne ab <laughs> laneen dëgg la danañu xam sax waaw waaw su ko defee soo soxna lew na la waaye bu mu tax nga koy jëfandikoo nu mu la neexee maanaam dafa am mode d'emploi boo ko war jëfandikoo moom sa soxna ci ni ma ko mën a waxee ñu dégg ko waaw maanaam sëy du bés bu nekk lañ koy def hmm? waaw ah sëñ bi am na ñoo xam ni <laughs> duñ ci jig de ñoom dañoo defee ne añ reer la moo tax nag mu bon ndax dangay gis koo xam ne mi ngi toll ci diggu ndawam maanaam am vingt ans mën ko lool boo ko waxee loolu du ko gëm ndax mu ngi ci toll waaye may naa ko bu bu ko commencé ci vingt ans buy am cinq ans dootul mën dara man toujours ay cas yooyu laay am ay vingt cinq ans laay am parce que li ko waral xamul nu doon jëfandikoo soxnam gis nga dañoo misaal ci ne sëy bis bu nekk mu ngi mel na nga jël machine bu bees tàq wala oto bu bees tàq ñu ne la oto bi kat bees tàq la zéro kilomètre la mën na daw dix ans. Mhm. te du am paan. Mhm. waaye dañ cee war a teg sans dépend ci ni ngay dawale oto bi. Mhm. ndax bu fekkee ne matin soir bus bu ne oto baa ngi daw te du noppalu. bu waroon def dix ans cinq ans lay def. nit tamit noonu lañ ko misaale maanaam bu ne mën nga dund ba am soixante dix ans di am ngóore. sans dépend ci ni ngay sëye. bu fekkee bus bu nekk yaa ngi sëy. maanaam nit ki bu waroon am soixante-dix ans soo ko tëlee buy yem ci vingt-cinq ans wala vingt trois ans sax di jeexal ndax sëy boroom xam-xam yi dañu misaal ci ne góor ak jigéen seen organisme ci wàllu sëy bokkuñu ñun daf ñuy wàññi ñoom daf leen di yokk maanaam dafay dolli ci ñoom tubaab yi nag ñoom nanguwuñ loolu xam borom xam-xam tubaab yi faj lu jëm ci wàllu ngóor ndax ñoom dañ ni sëy dafay yokk xel mm-hmm. sëy dafay yokk wér-gu-yaram mm-hmm. ndax bu ma jox la misaal rek benn ci téere bu ñu wax xuratul ayni nga xam ne suñ son bu Mbàkke moo ko bind boo demee ci xuratul ayni bu ubbi ko am na paas boo xam ne ci lay wax li gën a gaaw ci gàttuloo fan la dajale foofu bi mu koy lim yim ci njëkkee wax dañu yi gën a bon ci ci góor gën a gaaw gàttuloo fan sëy bu bari ci la bokk sëñ bi loolu moom na waar mu waxaat ne naan sàngara ci la bokk. Mm-hmm. mu wax ne lekk reesul nga lekkaat teg ci ci la bokk. Mm-hmm. mu wax ni maanaam di faral di téye saw wala bëgga dem wa nag demoo nga di ko mm-hmm. téye. Euh, nee na yooyu ñeent yooyu mu lim. nee na ñu gën a gaaw ci gàtt loo fan. nga xam ne sëy la ci njëkkee. kon noonu la ko wax mu ne nag am na ci kenn ci boroom xam yu njëkkee docteur yu magee dafa waxoon ne. mu ne. sëy li ci gën moo boo ko mënee mooy semaine bu ne benn yoon. Hmm. semaine bu ne benn yoon. dégg ngeen ko. xam nga loolu nag jigéen ñi bëgguñ ko. Hmm. waaw euh, ñun ñi góor ñet am na ci ñoo xam ne nanguwuñ ko. Hmm. ndax dañu bëgg a topp bànneex bi. waaye ne li ci gën mooy semaine bu ne benn yoon nga xam ne ci misaal bi weer wi yëpp ñeenti yoon nga ko ci def. moo tax mag ñi daan nañ dund ba jóge fi dee bàyyi fi seen i soxna. dañuy deewaale seen góoram. léegi la tëlee bëri. mais bu njëkk amul woon parce que ñoom dañoo xam nan lañ daan utiliser seen soxna. ah loolu waaw. su ko defee nag loolu kon bokk na ci ponk yi ma njëkk lim. ci ne sëy bu bëri. Hmm. day wàññi kàttan. Hmm. te boo xoolee boo gisee góor ñi di gën a faatu looloo ko waral. Hmm? xam ndax sànq maa ngi lim ne euh, euh, ñun daf ñuy wàññi. ñoom daf leen di yokk. li tax mu ñuy wàññi saa bu ñu sëyee ba daanu ñu baal ma ci waxit mi bi ñu daanoo deret génn na ci ñun parce que man yu boobu deret la. moom mooy dugg ci ku jigéen ki formé wu nekk deret après nekk euh, dëtt après nekk suux nekk doomu adama kon deret la. ñoom daf leen di yokk. jigéen moom dangay ngay gis jigéen boo xam ne bu amagul jëkkër day froissé. wala wala bu gëjee am jëkkër froissé. waaye su am jëkkër nga gis mu commencé raisonner. gis nga kon moom mi ngi koy jariñ mais ñun daf ñuy wàññi. ci misaal xoolal ñiy def compétition. Mhm. tay ji tay kuy def compétition bo bayone ben suba la nga wara def football wala basket wala lanen nga ak sa soxna bu xëyee do man dara. sa doole ju wagne ko na. deug la xam nga kon ñun daf ñuy wagne mhm. su ko defé kon seuy baxna te dagan na ak sa soxna. waaye nga xam ni nga koy utiliser ngir nga mën a tenir loolu nag communication la waxtaan ak sa soxna lii kat moo baax ci suñu santé ñu ngi ko organiser nii defe ko noonu ba nga xam ne yow di nga mën a yàggal sa ngóore di ko yàggal satisfaire te problème góor du am ah benn ngi benn ngi noonu ñaar damay jox nit ñi conseil mm-hmm. dafa am loo xam dafa bëri léegi li ñuy wax mastribation xam naa nag lii moom pàcc la boo xam bu ma ko tuddee. Mhm. dinaa laal ñu bari laal nga yaa ngi yëngal dëkk bi. waaw te ñeme naa ci li wax. dëgg la li may njëkk li ma leen di njëkk conseil ku ma ci laal ba nga yëg ci sa bopp. Mhm. na ma ñëw seet ndax am naa solution ci loolu. Mhm. maanaam gis nga lu bon a noonu sëñ bi. de un l'islam da ko dàq. l'islam dafa wax ne képp kuy fooye sa awra. ba yëg ci sa bopp. xamal ne yaa ngi def lu xaraam lu lu ma lu lu tere. te nee na atte bi ngay am ki koy def yaag atte ki doon jël xar wala bëy wala fas di ko sëyee yére yam même atte ah waaw lislaam loolu la ci wax dëgg la kon araam na kon bépp jullit boo xam ne yaa ngi julli di woor lépp lu la lislaam tere ne la xaraam na waratoo ko def kon de un mm-hmm. lislaam digalu la ko mm-hmm. te nee na boo ko bàyyiwul ba ëllëg yowmal xiyaam sa loxo ya nga ko doon defee lañuy ñuy ëmbal ci kanam mbindeef yépp ñaar lislaam artu ci ñaar yoon beneen bi nag ci santé nag la gën a bonati ndax kii masturbé wu bu ko bàyyiwul diglu moo tax bi may ubbi ma ne nañ ma diglu baax ndax. dinaa diglu leen sëñ bi tey xam-xam lay wax. dinaa leen laal te su ma leen laalee nañ ma seet. Mm. masturbation day wàññi ngóore. maanaam day wàññi dooley góor. Mm. masturbation day wàññi awray góor da ngay gis koo xam da doon awra bi da doon rëy mais day dem ba yàgg day tuuti. Mm-hmm. masturbation bi muy defa tax. Mm-hmm. masturbation day tax góor gaaw a daanu. dana dem ba yegg foo xam ne moom téléphone sax buñ ko ko woowee bu doon wax nga gis tubéy ju tooy bu gisoon poojub jigéen sax tubéy ju tooy waaw te day am ñoo xam mi ngi doon seen jàngoro munuñ koo wax xamuñ fuñ koy waxee ji dëgg la waaw moo tax ma ne bu ma laalee seen kii rek na nga xam ne def naa leen code mhm. nañ ma seet si ci secret mhm. dinaa leen jox ay conseil wax leen li koy faj masturbation nag moom ci boppam moom mhm. kenn du ko faj parce que am na ño xam ndaysan ndeysaan mi leen di dal ñuy dem ci sëriñ ñu naan rabalen japp wala nangam dañuy wax hmm. psychologiquement rek la maanaam day nekk sa xel ñen ñi bañ amuñu jigen te bëgguñoo moy tax ñu diko def hmm. ñen ñi amuñu moyo jigen tax ñu diko def hmm. ñen ñi dañu dem ba tam ko day melni ci ñom cigarette fi ne masturbation li ci graw moy bu nit ki bu deme ba tam ko manam soxnam sax dootu ko satisfaire parce que dafa tam loxo ndax loxo lu garaaw la yàlla def ci def benn dangar. Mhm. boo xam ne moom rek ko am. Mhm. ba nga xam ne lépp luy lëkkaloo moom bu yàggee dootoo bëgg lu dul loola. ma te masturbation de job boo xoolee sax da ngay gis nit bu amee taab ñu naan ko moytul sa loxo laal ko. Mhm. ndax loxo dafa am dangar. noonu la demee nga xam ne kii masturbe bu dana dem ba soxnaam dootu ko satisfaire faw mu faw mu masturbe wu soo ko yëg plaisir boo xoolee ci jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooye lesbienne maa ngi jégalu ci waxee ñun xam-xam la rek la. non dafa am solo sëñ bi fi nga laal moom moom la dëkk bi fi foog nga wax foog nga wax feebar yi. gis nga ñooñu li tax góor mënatu leen a satisfaire parce que sëy ci loxo lañ tam hmm. dañoo dem ba léegi seen moroomu jigéen la ñuy sëyal ñuy jël ay seen i loxo di ko jëfandikoo. Hmm. ba yëg seen bopp. Hmm. xam nga kon loxo lu garaaw la. su ko defee ñaar a ngi noonu yoo xam ne masturbation conséquence du ko du ko indi. te itam góor bu ko bàyyiwul maanaam nee la dootoo mën dara dara ci jigéen maanaam da ngay ah. tële complètement te dana egg foo xam kenn du la mën a fajate mm-hmm. waaye jëmmi masturbation kenn mënu ko dindi ci nit maanaam danga nga koy bàyyi yaa doon nit ki moo doon foo di ko def ba tàmm ko rek la tàmm rek la nekkul rab nekkul dara bi nga koy def du rab moo la ko sant dégg nga kon nag euh, pour bàyyiwaat ko moom du daal waaye nag liñ mën a faj mooy feebar yam lay yóbbee maanaam gaaw a daanu bi awra bu wàññeeku bi dégg nga Euh, yooyu moom mën nañ ko faj ku ñu seet si ba ñu jox la sunu xuuba pii moom musiba la gis nga kii moom ngay gis. Mm. après dinaa ci ñëw. Mm. gis nga màggat bi doxe yat ba nga xam ne yat lay doxe wallahi laazim du may faral sax di waat. Mm-hmm. waaye bu ñëwoon fii buñ ko joxee moom ci boppam bu téyee xale bu ndaw dana guddi googu dana dana daw bàyyi ko fa. Mm-hmm. waaw man maa la ko wax. waaw su ko defee. xuub bi garaaw na de kon. waaw nga xuub bi garaaw na kon ñaara ngi noonu ci waral néew kàttan yi beneen bi mooy. nañ moytu sëy ak suñuy soxna ba noppi ci guddi gi daanu rek wàcc surtout tàngoor waa ngi ñëw nga jël sa ndox mu sedd daal naan gis nga kooku mu góor bu ko bàyyiwul maanaam léegi tey mu tere. ah bon <laughs> gars kon loolu sëñ foog nga waxaat ko nit ñi dégg. waaw nañ moytu di sëy ak suñuy soxna maanaam sëy ba daanu. wàcc rek au lieu nga jot a nga daal di xëcc butéel ndox mu sedd guy daal di naan góor bu koy def moom may naa la boo ko defee ñeenti yoon léegi tey yaag paa bu màgg tey yam ci ci ci télé. waaw maa la ko wax. beneen bi ci des sangu ci biir sangu bi ngay ngay ngay tuur ndox loolu dafa sax bon ñaar yoon. de day tëj wërsëg bu budul dara. Mhm. day tax nit ku du gaaw am doom. Mhm. waaw kooku nañ ko moytu baaxul. dégg nga euh, euh, ba noppi dafay wàññi ngóore beneen bi ci des mooy am na lu ñu bëgg ñun góor ñi di ko def ngir yëgee ko suñuy bànneex mhm. d'accord waaye baaxul ci ñun ba tey mooy bàyyi suñuy soxna ñuy fooye suñu awra loolu fi ne moom masturbation ñëwee na <laughs> baaxul ah, bàyyi soxna di di ah sëñ bi kaa boobu kaa boobu critique yaakaar naa doy na moo tax moo tax tëli gi bëre man kaa bu ne gis fii kon fi ne ni gaa yi waru ñoo bàyyi kon kilif waaw ah? kon gaa yi waru bàyyi seen soxna yi di fooye seen awra yi ak seen awra yi ak tamit nañ moytu seen soxna yi di tëdd yéeg ci seen kaw di leen sëy xam nga da gis koo xam ne day am visu jabaram toog ci kawam di sëy rek moom moo ko mën a rek d'accord mën na am parce que suñuy soxna moom mm-hmm. ni ko benn borom xam-xam ndax euh, gis nga téere borom xam-xam yi dañuy jàngale sëy comme man ñi ma la fa ko jàng dëgg la dëgg la dañ lay jàngal sëy ni nga war a sëy yëpp dañ ne la lépp dagan na sa soxna ba mu des sëy tëddee ko sa gannaaw mm-hmm. waaye nag lépp it na xam ni nga koy utiliser mm-hmm. kon am na ñoo xam ne seen vise mooy seen soxna yéeg seen kaw ci la ñuy yéege seen bopp. d'accord mën na nekk sa soxnaa. waaye ah bu dee bu ko am poids de na ko conseil de ndax. dafa am malade bu ñuy wax péronie. péronie maanaam ci ni ma ko mën a misaale benn borom xam-xam bu ñu doon wax François péronie. maanaam ci ay années mille sept cent ans. jamono yooyu la fi nekkoon nekk docteur bu mag daan faj buur yi tubaab ndax xam nga France bu njëkk ay buur ñoo fa nekkoon boo demee dañ lay wan pale buur yeeg yëpp. dafa doonoon docteur bu mag daan faj. Mhm. moo trouvé woon Mana boobu tuddee ko boppam. Mhm. maanaam mooy awra bu làgge. Mhm. awra bu làgge fi na am na ñoo xam seen i awra dafa dëng. bu làgge. sëñ baal ma. ci nu ma ko mën a misaale. awra bu handicapé. waaw xam nga lii la yaa ko génne. waaw xam nga xam nga dafa am solo nag ñuy waxtaan ci parce que. gis nga mbir boo ko xamee. bala ngaa wax waxi faj. da ngay détaillé yëpp. dëgg la ba ku nekk fa mu toog di ci gis boppam. ndax yi ma la limal fii yëpp fi na am na ñoo xam ne seen i feebar. dëgg la bu ko defee daan na ah quoi kon kii am naa yaakaar ci ne war na ma mën a faj. Mm. man li may wax dama koo xam ragalu ko. dëgg la waaw ndax dalu ma mais maa ngi koy wax kon jàng ko moo tax ma di ko wax. dëgg la comprendre mm. su ko defee loolu ñuy wax péronie moom la ñuy wax awra bu handicapé. Mm. te bokk na ci yi koy indi mooy sa soxna di sëy ak yow nit nag mënoo maîtrise ndax am na ñoom boo xam bu ñu fa xasee yegg moom mënatuñoo. Oh. <laughs> yaa ngi sax ñu ngi wax naan am na looy tari xaw ma naan lan waaye boobu sëñ bi doo ko tari. foofu tari du xaj doo ko tari. xaju fi foofu tari xaju fi waaye nag am na ñu yàlla may sago soo xam ne fii ne bu doon sëyeeg seeni soxna sax bu ñu demoon ba war a toll ci yeggal fii mën nañ mën nañ ko bañ a sotti ci soxna si. dëgg lépp xel la rek. Mm. gis nga mbirum sëy moom. Mm-hmm. sëñ Moustapha psychologiquement rek la. Mm-hmm. gis nga ba ci gaaw daanu am na ci yoo xam sax du feebar fi ne jarul jox garab. mais boo ñu seetee ñun bu ñu la rek boo jarul jox garab daañu la ko wax bu jaree jox garab. wax la ni parce que li tax am na ñoo xam fi ni nii seenum xel moo nekk ci ne ñoom dañoo tële moo tax bu ñu tiimee soxna sax ndeysaan duñ mën dara te gis nga sëy ci bopp lay jógee. ci mm-hmm. xel la moo tax nit ki bu sonnee du mën a sëy. baal ma jox la benn ci ne ci bopp la. seetlul ki nga xam ne dafa màndi fi ne bu dul sëy soxnaam du gaaw a daanu parce que xel mi newu fi. Hmm. <laughs> ne ku ni dur. <laughs> waaye seetlul tamit ki jàq. Uh-huh. ki tiit mënta sëy. dëgg la ku mer mënta sëy. dëgg la waaye ku regg ku lekk ba suur xel mi ci li mu njëkk dem mooy jigéen. dëgg la de. kon mbirum sëy psychologiquement la. Mm-hmm. ci bopp lay jóge bañ na ko ba sax nit ndox mi nga gis muy génn fi ne fii lay bàyyi ko. wàcc ñëw ci ndigil mu hmm. soog a daanu. dëgg la <laughs> loolu sëñ bi sëñ bi wax nga xam-xam boo xamante ni ah, sëñ bi yaa ngi laal dëkk bi nag. dama ko jàng yaa ngi laal Sénégal yaa ngi wax jàng jàngoor yi nga xam ne kenn du ko wax xam nga lii dafa am solo parce que tey ji am na loo xam dañ naan lii kenn du ko waxtaane te bu tey jii am na koo xamante ni mi ngi ak jàngoro ji te rus na koo wax te xamul ban solution lay def tey sëñ bi tey nga fas na di ko waxtaane ba nga xamante ni tey kookee dina ci mën a jànge waaye dina mën a ñëw def déplacement nga conseillé ko ne ko defal lii ak lii ak lii te kenn du yëg mu man cee jariñ loolu dafa am solo. waaw moo tax ku ñu seet si nag ba ñëw su aajo yi ñu faj ko daañ ko ko wax su aajowul mu jël garab ñun daañ ko ko wax. Mm-hmm. jox ko ay conseil na ko del moytu lii moytu lii. Mm-hmm. su boobaa euh, xayroon incha allah yàlla mën na def mën na ci gis boppam. Eh, bu feebaree mm-hmm. jox ko garab. wallaay am naa yaakaar ne. Mm-hmm. xoolam dana dana sedd. Mm-hmm. waaye maa ngi doon maa ngi koy tëjee ci péronie bi ma doon wax rek ndax wax lépp du xacc dëgg la bi du ngeen am jot ñu ni duñu am jot. Mm-hmm. péronie boobu ñi ki nga xam ne seeni soxna dañuy sëy ñoom di yéeg ci seen kaw nañ xam nu ñuy yëgee ci seen kaw ndax xam nga ku yéeg ci kaw. maanaam day yéeg a ko wàcc. léegi yéeg a ko wàcc bu am na nu mu koy defee rek. awra bi day lemu léegi nag su lemoo mm-hmm. mm-hmm. day waral am na téwo bu ne ci biir benn téwo mm-hmm. boo xam ne maanaam ci ni ma ko mën a misaal comme téwo waa téwo ndox rek siddit la waaw siddit boobu bu lemoo dafay dara ji dafa dafay dafay def daratal ci biir dëgg la joon nag bu waaye mooy indi li ñuy wax péronie gis nga lii moom may wax moom ah. Ah, kuy dégg nii rek xamu ko mais médecin yi xam dëgg-dëgg su ma ko waxee wallaahi daan na booy bi wala ngóor sii fu mu nekkoon ndax deg nga fi kuy fajj awra ba tay mosula wax malade li li prefer ya ko ki ko ak lepp luñu xam la motax lambatu wuñ ko mm-hmm. gis nga li walu wi ñaar fekk at ma koy def mm-hmm. mosuma na sax genn ci media lol mom wor nañu nga xamne luma xam la mm-hmm. euh may baxé askan gis nga ordonnance bi gëna bax ci ñun goor ni bax ci lepp sax nañuy jëfëndiko ndox mu tang gis nga chinois yi moom lañ gën a jëfandikoo doo gaaw a tële mukk waxuma la tële sax mais malade yi ngay dégg fii yépp da nga ciy mucc Hmm. muy ay tension manam après danañ defat émission bo xam dañuy expliquer ndox mu tang ah non duñ ci yam duñ ci yam lii kay lii kay moom saa su nek rek nañu indi ben thème parce que thème yi bari na sa su nek ñu indi ben thème bo xamne ne askan wi dinañ ci jàngee te dinañ ci jariñu lolu mom xam leen ni seigne Assane mom fi la ne ngir di leen waxtanal ak di leen yee ak di leen di leen wan fi nga xam fa ngeen di jaar ngir mëna jariñ. mu ngok ndox mu tàng nak euh bo yeewoo rek nga nuggal sa ndox bu mu nugg sa yaram ñëmé ko nga naan ko maanaam lépp luy garas ci yaramu nit ki daf koy daf koy dindi da koy éliminer lépp luy toxik ci yaramu nit ki daf koy toxique ndax nit tànk mi ngi lekk am na dese yoo xam baaxatul dafay génn te su génn moo waral lenn ñu koy demoon rek waaye da ci am yoo xam day des. Mm-hmm. te su booba tànk yaa ndox naan ndox mu tàng dafay dañ te feeg yaa ngi naan ndox mu tàng. ak lii di citron doo mas a am xolu euh, feebaru xol. Mm-hmm. muy ay tension yu mel. Mm-hmm. moo tax loolu dama koy tënk noonu rek pour wax njariñ li pour nit ñi fonk ko. chinois moom moom moom mooy seen mi maanaam seen garab bi gën a biñ gën a fonk bu ñu yeewoo li ñu njëkk a def mooy tàngal ndox naan chaque après repas dañ tàngal ndox naan biñ ci def dara ndox rek ndox kese mais sëñ bi c'est que sëñ bi yaakaar naa waxtaan wi yaatu na ak li nga war a joxe yëpp yëpp xam naa du yam sax ci benn émission foog ñu def koy émission yi émission yi émission léegi nag xam nga sëñ bi tey jii li nga xamante ni mooy huwa bi dama gis sëñ bi euh, li ngay ëpp li ngay nekk côté Dubaï nekk ci dëkk naar yi nekk ci dëkk tu bañ tuddee la le mara de la am na lu ko waral ba gis nañ sax am na photo yu ñu gis gis buuru màkk am cadeau bu mu la jox tey ji lu toll ni buuru màkk recevoir la am cadeau bu mu la jox tey ji am na foo toll ca réew ma wala am na sa xam-xam fu mu toll tey loolu loo ma ciy wax ok euh, buuru Abu Dhabi la moo nekk ca Dubaï moo nu ko jox mhm. euh, ñu jëflante mhm. te euh, doon wax ci xam-xam mhm. ak di jëfe ci xam-xam ba yàlla def nit gis ñu trouvé ñu jëflante ak ñun am ak moom relation moo ñu boole moom bañ demoon fa bañ fa demee am na ñu jëflante xëy na secret la duñ toog di ko wax waaye bëgg na ca ba defal ñu ay cadeau bëgg na ca ba may ñu ne réew mi sa réew la léegi waxtu fi bëggee ñëw ñëw bi ñuy dem moo ñu daggal billet première classe dix millions di moom dëgg la moom première classe ba pare dañu ma xoolal ñu la neex hmm. nga ànd na ñoom bi may dem am na naag kenn rek. Mm. waaw parce que daa am yoo xam secret la. Mm. Euh, yëkkati tamit montre jama buy jar cent millions. teraanga teraanga teraanga. yëkkati tamit boo xam ne or la. Mm. buy jar cinquante millions jox ko. loolu lépp du sax dara waaye dañuy wax ne liggéey rek a dëgg la waaye dañuy wax ne jub rek a wóor. waaye dañuy wax ne xam-xam rek a soo ko fonkee mën na laa may lu ne. dëgg la waaw xëy na loolu moo nu ko may. ñu ciy sant nag yàlla na. waaw su defee. gis nga wàllu wi moom. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waxuma la Dubaay waaye muy Europe. Mm-hmm. muy fu ne ndax Arabie Saoudite boobu nga wax maa ngi ci war a dem am naa visa wu un an. ay kilifa ñoo ma ko defaral ma war faa dem ñàkk jot moo tax demaguma ba léegi. waaye incha allah ragal naa sax fa laay defee aj màkk bi. ndax aj am na ren. incha allah waaw incha allah. Ah. Euh, te loolu rek moonu fa yóbbu. gis nga garab yi. moom sëñ bi ku yàlla dogal. nga jëfandikoo ko. nga am problème mu ngóore mm-hmm. ah ak as boo mën a am. Mm-hmm. ci ndimbalu suñu borom dana la faj. mooy xuwa bii. xuwa bii nag moom sëñ bi moom moom daal xuwa gii daal nan ni ko jàkk rek xuwa mii mais sëñ bi bële ndax yokk bi moom yokk yokk sëñ bi daal fene ne yokk bi xam naa ne ñii yokk loo ngi taxaw ñi bëgg a yokkoo ngi taxaw te sëñ bi yokk bi dafa am loo ci wax de yokk bi yokk bi yokk moom mën naa ne am na solo mën naa ne amul solo ndax bu dee ci fiñ ko jànge ñoom dañ lay xamal ne la sax mm-hmm. gis nga awra moom mu gudd ak mu rëy amul njariñ mm-hmm. ndax jigéen mm-hmm. fa muy yëge bànneex soriwul ci moom te jigéen li coow li rëy rëy rëy rëy bu masta sëy baaraam bu ndaw bi sax bu ci duggee mu mu yëg mettit yëg bànneex waaye fa mu amee solo mooy dafay jox bànneex jigéen ji mm-hmm. ndax jigéen euh, buy xemem góor mm-hmm. rek li ci jiitu mooy na awra ba mm-hmm. am nu mu toll <laughs> ndax ñun xam-xam la ñuy waxee non dëgg la dëgg la xam-xam la waaw comme ñun góor ji góor ñi ni ñuy xeme mi jigéen ci mu am gannaaw wala mu am kanam xam nga yooyu du fu ñuy sëyee waaw dëgg la fu ñuy sëyee moom fenn rek la waaw bu amee loolu day tax ñu gën koo xemem dëgg la <laughs> ñoom it fa ñuy la ñuy soxla ci ci ci góor du loolu moo la koy jox. Mm-hmm. nee naa la euh, na dëgër rek. Mm-hmm. moo ci am solo da ko ko jox. Mm-hmm. waaye du rëyaay bu mbaa guddaay bi. waaye dañ ko cee taamu. waaw. ndax euh, xam nga ñun jigéen ñi ñun góor ñi duñ ci ëpp buñ doon takk duñ takk koo xam ne euh, euh, kanam ga maanaam <laughs> ci misaal bi dënn baa nga mel na perong. <laughs> gannaaw nga mel ne perong. Mm. xam na duñ ko takk. dëgg la parce que duñu jox ak xamante dëgg la gu jigéen kat loolu lay bëgg moo tax ma ne kon amu ci solo ci réew bi waaye am na solo tamit ci ne dafay yokk xamante moo tax jigéen ñëpp. suñ sañoon borom kër bu mel noonu la ñu am. Mm-hmm. ba tax na moo tax am na solo tuuti. Mm-hmm. léegi nag day am góor ñoo xam ne seen awra dafa gàtt. Mm-hmm. loolu itam feebar la am ñoo xam ne dafa digg doomu am ñoo xam dafa gudd ba mu ëpp gis nga bi gudd ba mu ëpp sax moom baaxul waa parce que gis nga foo fekk borom awra bi gudd ba ëpp nga xam ne même su euh, awra bi jugul sax day rëy gis nga kooku foo ko fekk gaaw a tële gis nga awra moom bi baax bi dëgg dëgg borom xam yi dañoo wax ni su góor ki sëyul dafa war a mel ne rësool dellu ba mel na bu xale waaye fu mu jugalee mu génnaat ngeen baal ma dañuy jàng la rek dëgg la dafa am solo fi ma ko jànge man ay boromi xam-xam lañ ay ñiti yàlla lañ. dëgg la te teewul nii ma ko waxee noonu lañ ko waxee. dëgg la parce que jàngale dafa war a leer. Mm-hmm. kon loolu rek lañ ci jublu. Mm-hmm. su ko defee dañ ni bi ci gën bu sëyul mu dellu ba mel ne bu xale. Mm-hmm. waaye bu moom la ñuy wax bu nekkee en repos tubaab. ñu bu nekkee en érection mu génn. kooku moom wér na kooku mi ngi ci état de santé bu baax. mais ki nga xam ne nag moom su jugee mu rëy su jugul mu rëy mu su jugul mu rëy. su dëggal su jugul mu tuuti. su jugee mu tuuti. Mm-hmm. kooku nag moo feebar. kooku moom moo ñuy seet si moom lañuy jox yokk bii. Mm-hmm. kii moom garab la goo xam ne bu ñu la ko joxee délai bi vingt jours lay am. bu fekkoon dafa gàtt. waaye nag ci kaw nag. Mm-hmm. bu amul ndoxum siti dañuy wax mu leer. waaw bu ñëwee bañ xool la bañ laaj na ndax daan la laaj boo amee ndox siti daañ ko xam. su boobaa dañ lay wax demal faju ko. wala boog ñëwul ñu jox la traitement ndoxum siti ba nga wér nga soog a jël garab. mais sëñ bi nag ndoxum siti. waaw coow li bari na ci lool. parce que nit ñi dañuy wax naan ndoxum siti ku ne naan damay faj ndoxum dama est-ce que sëñ bi ndoxum siti danga koy faj. Euh, yàlla may nañ ci. Hmm? ndoxum siti moom la mag ñi doon wax toppum siti. Hmm. am ñu naan ko jàngoroy kajoor hmm. topum sidi bi liko waral moy hmm. da ngay gis ko xam da koy am hmm. njabot gum am mu top ko motax tax wax topum sidi alaf ñi di hmm. wax li tax ñu wax jàngoro kajoor itam maam bu xasse ba am day jur jangoro yu beure beuri comme lu mel omerut xam nga dana dem sax bay wañi ngóore wa mom doxum sidi doxum sidi wa dem ba indi gumba doxum sidi dana dem ba mur ay beuti wa baxul deeng nga su ko defee moo waral ñuko don woyé ki yépp xam ko nak motax ñu la yoy gis nga garab gi ñu tuj ban nañ ko ba dëj dëpp lañ ko tuddee dëj dëpp ba nga waaw damay dégg na xam nga lu waral mu tudd ko loolu fi na ndoxum siti lu nakare faj la mm-hmm. lu nakare faj la wër na ñi coow naan dañ koy faj da ngay dem naan ba sonn naan ren ba sonn te du wër nañ ko faj nak amna ñu ci yalla may mm-hmm. gis nga man ñaari pot yi rek la lay jox motax mu tuddé ko daj depp te billahi benn pot bi sax bala jeex mm-hmm. yow sa bop ku am ndoxum siti dana ko yëg bu dee bëli yi da doon xasan wala yaram bi di tàng wala suufu tànk yi di tàng di xar wala muy génn ay heure wala ndoxum siti dana dem bay jàpp nit sax du doo doom ndoxum siti dana dem jàpp góor ba ndoxum man yi bu oyof ba nu mën a jur doom kii sëñ bi na ku ko wedd rek ñëwal seet si ma euh, sant naa yàlla nag duma ma ndamu ci lenn ndax ab jullit laa te lepp lu ma len defal ngeen di gis ci mm-hmm. arxuraan la ko jukke man ci arxuraan la juddu waaw waaye arxuraan ah. mm-hmm. mënta dem ba plante muy mm-hmm. garab yi ngay gis yi sax gis nga garab yi ngay gis muy sax fi yeb bo ci gis sa bu xeye am tur bu muy sabbal soko ko mum bolé ko ak mom amul lu mu mënta saafara kon sëñ bi yow da ngay yëngu ci walu turu yalla loolu lañu gëna ndax ci lañu juddu asrar mom ci lañu juddu xam ko lool dem ci ba am ci ndigal di jëfandikoo euh, tur bii ñuy wax surul fatiha hmm. maanaam tur bii ñuy wax fatiha gis nga fatiha hmm. euh, mën naa ci lu nekk hmm. ndax dama ko xam ma détaillé la ci tuuti fatiha ci lañ génnee juróom-ñaari bis yi nga xam ne moo am ci àdduna ndax bis yi juróom-ñaar la mi ngi tàmbalee dimanche yam ci samedi beneen bu bis boo wax danga koy répété waat <laughs> mi ngi jógee ci fatiha Euh, li ñuy wax xaatim Souleymane moom la wax xawaatim Souleymane nga xam ne yonent yàlla Souleymane loola doon secret ba nga xam ne jaaro boobu mu naan takk euh, moo tax ñuy faral di def jaaro yi nga xam ne dangay gis mu am xaatim Souleymane ñu ngi jóge ci Fatiha nu jóge ci Fatiha mooy Fatiha juróom-ñaari aaya la juróom-ñaar la am aaya Euh, juróom-ñaari aay yooyu ci lañ génnee juróom-ñaari bis yi. Mm-hmm. bis yi ma lay wax ci lañ génnee tamit juróom-ñaari turi euh, euh, xaatim Souleymane yi mm-hmm. mooy fard. ñi jàng la sax daañu xam li may wax fard jabbaar sakoor saab zahir xabi zakiyu mm-hmm. muy juróom-ñaar foofu la jóge juróom-ñaar yooyu noonu moo jàpp juróom-ñaari buuru jinne yi nga xam ne ñu mooy juróom-ñaari buuru jinne yi suñu borom sàkk fofu tamit fa la juróom-ñaari malaaka yi yi nga xamne ñoo jité malaaka yëpp fofu la juggé hmm. ci faaté juróom-ñaari faaté yi fa la juggé <laughs> dégg nga. loolu moom doy na waat sëñ bi asamaan yooyu ngay dégg ma nga juggé ci juróom-ñaari limi faatiha yoy nga xamne ne faatiha suñu borom. moy aduna mën na ni dafa teunku ci faatiha moy lepp moy alcorane moy lepp faatiha. Hmm. ndax bo xolé faatiha 45 tombe la manam tombe yi nek ci bir 45 la. ta 45 bo bindon suñu mam adam mi nga xamne mo jur ñep boko ko chiffré ko mm-hmm. wax la wax kat yi dañ ko xam ndax chiffré yoy moom suñuy code la boko chiffré manam bind ko nga def ko chiffre 45 mm-hmm. la lay jox mm-hmm. turu adama ci adama mo jur doomu aadama yëpp wa ya itam mooy yaay ñep té 45 boko diviser par 3 15 la lay jox ta hawa boko bindé momit moy 15 damay xam-xam euh fatiha 11 mim la am juróom-ñaari euh, onze fukki miim ak benn moo ci nekk. Mm-hmm. Euh, onze mooy suru ismu jalal. Mm-hmm. ismu jalal tur bu tàngala bu garaaw moom mooy 644 xëy na sax 644 li may wax nag moom ñii laa saraar laay waxal. ñoom xam nañ lii xam-xam dëgg xam li may wax. Mm-hmm. parce que ragalu ma ci li may wax. ñu 644 sax moo gën a fës ci jalal ñu naan 644 déedéet jalal du 644. ah 11 la. moo tax moo kon Serigne Cheikh naan jalal 644 du moom jalal. seen xam-xama yam foofu koo ci gis day tëb naan 644 640 non non non jalaal dëgg dëgg onze la hmm. moo waral onze mii mu faatixa yooyu li tax ma ne la demal ahamun saqakun xalaxun yasun loolu mooy jalaal hmm. te ahamun saqakun xalaxun yasun boo ko defee par alphabet onze alphabet la hmm. nii lasaraar laay waxal kon loolu mooy la ci biir nag dama koy nëbb waaw ndax ñun ay doomi soxna lañ fi ñu juddoo alxuraan asraar rek lañ xam loolu moom sëñ bi bëggoon naa cee ñëw xam nga jamono ji nit ki mën nga koo gis te doo ko xam ñu gis ni tey jii euh, da ngay def wàllum ñaan waaye am na foo bokk ndaxte fi nga bokk tey jii bu la neexoon nga bañ a def ñaan di am say taalibe ñu lay indil nga toog fi nga toog di tëju di leen defal ñaan mu jeex waaye da ngaa bëgg dimbali askan wi ñu gis ni nga bokk ci njabootu sëriñ Touba nan nga ci bokkee. waaw loolu moom dañ ciy sant yàlla Euh, mu di ñu defit it gën a yokk sunu taalibe mm, waaye du ñu def mukk ñu yëg sunu bopp mbaa ñu ci ñoddi leneen mm-hmm. donte yelloo nañ ko mm-hmm. euh, njaboot Sëñ Tuubaa nag ci lañ bokk ndax ci lañ nàmp mm-hmm. fa ca fa mën naa ne sax mën noon wax fa ca gën a foore fa lañ ca bokke mooy ci meen waaw <laughs> ci meen lañ ci bokke mu sunu ndey mbakke mbàkke la soxna mamb sa mbàkke lañ koy wax soxna maam Moussa Mbacke sëñ Abdul Xafoor Mbacke moo ko jur. Mm-hmm. sëñ Abdul Xafoor Mbacke maam Mor Diarra ko jur. maam Mor Diarra nag ak sëñ Touba ñoo bokk ndey. maa la wax loolu. waaw noonu laa ci bokkee. Mm-hmm. moom ci boppam moo ma yar. Mm-hmm. jàngala ma Alxuraan def ci man lépp. sama waajuru góor yi itam ku ko xam. ci lasraar la ko xamee. Mm-hmm. turu yàlla mu doonoon ci macha allah dañ ko doon rang doonoon fees dell boobu kenn xamagul luy affaire sëriñ yàgg na ndax moom 87 la nelaw. Mm-hmm. kon kooku xam nga yàgg na. mu amoon ci tur lool ñu ko daan rang. Mm-hmm. maanaam ay kilifa yu bëri jaar nañ këram du ma tudd tur parce que loolu day doy euh, bon nga xam ne man dama ko nàmp. waaye yem ma foofu ba ma ci jógee damaa dem jàng gis nga asraar forantuwu ma ko dama koo jàng mhm. mën nga maa mag ci la asraar waaye mënoo ma wax tur bu ma jaaxal ci asraar mhm. euh, suñ toogoon nag sama jëm mën na laa ndax damay ko civilisé damay ko toll jamono te loolu moom jamono da ko laaj suñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan na ko wax dana àdduna solul ba ne joŋ xeeñ lu neex waaw daf cee bokk dafa mm. bokk ci àdduna mm. moo tax dañuy defar suñu bopp ba mu rafet mm. waaye terewul ndax xam moom fa muy nekk du ci jëmm du ci col ci bopp la. dëgg la. te yàlla def na ko ci ñun. ah eh. macha allah bu bu bu ñu ko yàlla mayee. Hmm. ñun uh, yéen waa te chaîne bii di uh, Ñoxi TV. Hmm. incha allah daan ci gën a détaillé defaat ci ay ah, yeneen i mbir. ndax maa ngi doon wax lu am ci faatiha lu am solo ci faatiha. Hmm. eggalee gu ma ko daañu ko eggalawaat. danañ ko eggale ndax te xam naa ne yaakaar naa ne man man wóor na ma ni maam li nga yor dëgg-dëgg ba pare li li neex yow ci sa waxtaan mooy dangay laal foo xamante ni kenn du fa laal. foo xamante nit ñi sax ñi kenn ki nga am na ko am day yor téléphone ngir bëgg ku ci waxtaan ba mu jariñu ci kon te li nga ci yor li nga wax ni am nga yeneen yu gën a doy waar yoo xamante ni gàddu nga ko tax xam naa ni incha allah yeneen émission dinañu ko dinañu ko yaatal mais sëñ bi gannaaw ba ñu waxee ci turu yàlla wax ci xuuba wax ca ndoxum siti bi wax ci yu bari ñu xam ni borom xam-xam nga mais jamono jii sëñ bi jamono jii maaraay bari nañu. kenn ko internet bi bari na coow kii sëriñ la kii sëriñ la kii sëriñ la sànq ñu ngi ci doon waxtaan nga man li tax sawaratuma ci mooy maaraay yi nga xam ne tey da ku ni sëriñ nga ba nit ñi wóolootuñu maaraay est-ce que loolu loolu ci yéen la wala ci ci ci ci askan wi ñoo amul gis-gis wala dafa am maaraay yoo xamante ne ñoo xamul daal. waaw loolu moom li ma ci mën a wax mooy xanaa ci jamono la ndax jamono moo demee noo xam ne moom yàqkat yi ak njubla yi jamono fu mu daw jublu rek. wala fu nit ñi daw jublu rek foofu la ñuy daw daw féete mm. ngir mën caa jaare naxe mm. kon damay wax ne jamono la mm. waaye nag euh, dana am it nu ma ci waxee ndax mënumaa toog ci ndax am na nooy waxee ci mbir day mel ne da toog ci branche ba pare di gor branche ba xam nga kon bu yàggee nga daanu ba pare nag ma boole sañ nañoo yeddante ci loolu sañ nañoo yedd balaa nga yeggale ma boole ci tëkkonte bi ba pare dañ cee boole yi di tëkkonte kii di bu kii génne def vidéo dal ci kii ah kii ne diw nangam nangam kii ne diw na defante bi kii ne wanante karaama yi est-ce que loolu affaire bi loolu est que nit ñi loolu lañ soxla. gis nga loolu amul solo gis nga moom boo mënee jëfal rek waaye jarul maa gën a mën jarul diw mënul dara jarul tëkkonte. Mm-hmm. Euh, lasaraar moom bañ na ko ba li muy tekki mooy géej yaatu na mm. bu dee xam nga rek kenn ku ne mën nga caa jukki ba jeexal mm. fi na tey li ma ci tarara wax fii yëpp am na koo xam xam na ci leneen lu ma xamul mm, waaye li ma fi wax it am na ñoo xam ne xamuñ ko mukk noonu la demee kenn ku ne la nga xam wax ko la mën jëf ko jarul ma mën jarul yàq kenn jarul kii dégg nga ay karaamaak ay jinne gi yëpp du am gis nga ñun yi soxna yi juddoo ci askanu sëriñ nga xam ne ñun fals yóbbuwuñu ci dañ cee juddu. Mm-hmm. sañ toog ñaan. Mm-hmm. duñ ci clandestin ñun dañoo sañ a toog ñaan. dëgg la de dañ koy yaakaar ci ñun. dëgg ndax bu nee ñooy fan diw lañ bokk rek li ñuy njëkk xalaat ci ñun walaay dëgg la ñun kon duñ ci clandestin. dëgg la gis nga ñun xëccoowuñu mën a faj jinne xëccoowuñu ay karaama. waaw daañ ci gën a ñëw détaillé xëccoowuñu jinne gis nga jinne du lu ñuy ndamoo jinne moo ñu war a ndamoo ndax gis nga jinne doomu aadama yàlla may na ko pouvoir boo xam ne day tàggat jinne ba mu di ko sant muy def mu koy tere muy bàyyi hmm. loolu yàlla moo ko terale doomu adama ngir hmm. jëmmi Seydina Muhammad hmm. lépp lu yàlla sàkk waxuma la jinne waaye malaaka sax doomu aadama gën a foor moo waral keroog ba euh, suñu borom sàkkee sunu maam aadama suñu borom woo ki gënoon foor ci malaaka yi muy Iblis na ko sukk sukkalal euh, sunu maam aadama nga màggal ko boobu yàlla def ci doon jàngale ne lépp lu yàlla sàkk doomu aadama mu ci gën a fooral kon jinne du lu ñu naw moom moo ñu war a ndamoo kon kuy ndamoo jinne mbaa naan am naa ko ak ngir bëgg ñu ragal ko ko xam xamul dara boog pour te dire yàquma kenn nag waaye nañ bàyyi yooyu li ma bëgg a wax rek mooy nañ modeste foofu laa bëgg a waxee dégg nga la karaame itam amul solo jarul di wane ndax gis nga dañoo wax ne borom xam ne dañu wax ne yu yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne gis nga di xam karaama di ko wane ne na mi ngi mel ne jigéen ju gis mbaax di ko wane. xam nga kon loolu xew boo xamee karaama kon nëbb ko lañ bëgg a wax. xam nga jigéen ju gis mbaax ba pare wël di war naan di xëy di war a naan xool leen damaa gis mbaax. xam nga loolu ñaaw na. kon loolu lu la. Mm-hmm. jarul di wane kenn ku ne na xam lim xam toog fi mu toog liggéey li mu liggéey nit ñi moom ñëw gisal seen bopp te la ci sëñ Abdou nee na naxaate ñetti fan la bis bi ko waxee ñëpp daw wut si la ak bis bi ñu koy xamee ak bis bi ñëpp di disparaître kon moom fii moom maa fi mën rek maa fi mënul nekk fi ku mën dara nit ñi daan ñëw ci yow sax ba abadan duñ dem ku mënul dara nit ñi daan ñëw ci yow waaye bu ñëwee bu ñu xamee ne mënul dara dootu ñëwaat jeex na su ko defee kon nañ rafetal xol yi rafetal jikko yi ku xam mu ñëw ku xamul mu ragal yàlla te màndu mm-hmm. dégg nga li la wax mm-hmm. bi bu dee tailleur la mën na seet yàlla dem sax ci tailleuram mm-hmm. sëriñ bi bu dee jàng na la sarata xam na seet yàlla dimbali askan wi dëgg dërëm neex na lool waaye am na lu ko ëpp solo mooy ñu laver sunu honneur. waaye tamit ñu xam ne ay jullit lañ te dañuy faatu. waaye ñu xam ne am nañu njaboot te war nañu leen dundal ci lu sell. su ko defee loolu mu ëpp solo man loolu loolu laa ci mën a wax. Ah, su ko defee. sëñ bi sëñ bi loolu am na solo balaa ñuy tëj euh, ndax gis nañ ni itam loolu faaw ñu laaj la parce que léeg-léeg gars yi gis la euh, nga ànd ak yenn comédiens yi Euh, ku ci mel ni saa neex ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom ñoom ñoom seexu naa ñoom alaaji euh, fan yi rek maa ngi gis am na producteur bu mag boo xam day yëngu ci wàll ci koo xamante ni producteur bu mag la cinéma international ñëpp a ko xam tey mu ñëw dal ci sa biir kër am benn film muy def jëm ci euh, lu am solo loo xamante ni tey jii mu solo ci ay acteur ku ci mel ni Waly Seck di ci joué ak ñeneen ak ñeneen te lépp jaar ci sa loxo sëñ bi gis nañ ni tam ci côté production da nga da nga da nga am connaissance ci loolu ci wàllu cinéma waaw lii moom xam nga dafa wàllu ñaan moom dafa doon loo xam dañ ko war a def di ko def rek comme ni ñu ko waxee. Mm-hmm. waaye mën naa ne sax ñu ngi ci yeneen yoo xam ne moo ñu sax gën a occupé. Mm-hmm. waaw ndax fi ni wallahi sunu téléphone dañuy xëy suba ba ngoon nit ñi di ñu woo mm-hmm. waaye li may nangoo recevoir ci semaine bi bëriwut wallahi wallahi <laughs> dëgg la xam nañ loolu bu wér parce que man budul dara samay këyit man opérateur économique moo ci nekk moo ci nekk sama papier yëpp am naa turu entreprise manam Om dafer la même bu dara hmm. mo waral sama tukki yu bari hmm. mo waral ñi may jëflanteeg yooyu loo ko waral ñeneen ñi may jëflanteel looloo ma mayit bama ma ko kooku wax muy sama xarit mom hmm. dama ko ne sax ci sama kër ngay dal ndax barki dem lañ ñew ma leen jël won aéroport mook ben euh, scénariste bu mag ku ñuy wax euh mi ngi ñu dal ci ben hôtel euh ak yeneen ni tubab pour ñu ñew def si ay filmu cinéma yo xamné international ben bi mi ngi tudd euh, revolution mhm. benen bi mi ngi un voleur à Dakar mhm. benen bi ci dess mom lañuy tourner ak Wally mhm. euh commencé nañ ko momit film liñuy li wax euh, film vampire lay doon euh, commencé nañ ko nga ay yépp ay série lay doon ñu def ci ay financement yu bëree bëree bëri bëri mm. war ko tunde nga xam ne bu paree mm. euh, Netflix lay daw mm. waaw nga xam ne international ñoo kooku maa leen fi indi man maa leen fi indi ci sama loxo lañ nekk macha allah représenté fii itam ñim xam fii ñëpp maa ko boole ñoom muy ñoom saa neex mu nga xam maa leen dund yi ndax ñoom ñooñu samay xarit lañ say xarit lañ moom <laughs> dara moom samay waay lañ dégg nga euh, ak ñoom euh, Waly Seck boobu moom muy sama waay di sama xarit ak ñeneen ak ñeneen xam ñoo ñoo xam ne ñi ngi war a ñëw ko mel na yow mii nga xam ne sama xarit nga. waaw émission bi nii sama dëgg la la te yaay yaay sama taaw. waaw loolu moom dëgg la. Euh, incha allah loolu lañ fas yéene liggéey ndax moom bi ñu waxtaanee dama ko xamal na ko. Mm-hmm. Euh, dëgg la gis nga lépp loo gis. Mm-hmm. Euh, nit ki moo ko yóbbu fa mu àgg rek. Mm-hmm. ma ne kon nag Sénégal suñu réew mii di Afrique di Sénégal am na lépp. mën nañoo fexe bañ tolloog. sunu acteur cinéma yi ñu dégg ci àdduna bi yëpp. dëgg la mënuma loolu dëgg la. Mm-hmm. bi mu ci waxtaanee kii muy wax te nekk Hollywood kooku 35 ans la def Hollywood. Mm-hmm. bëri na film yooyu gis moo ko bind. Mm-hmm. aleen mii ñu àndal te dara. wallaahi laas ñoom ja ba ci filmu James Bond bi mu bindoon moom moo ko ci kii. waaw Dallas ci ñi bind Dallas la bokk. Mm. <laughs> kooku mag la euh, mag kilifa la. waaw moo tax Wally Seck bi ñu ko waxee gëmewu ko dafa dafa daw. Mm. dafa daw ñëw parce que. Mm. tellement dafa nekk loo xam ne. ah lu am solo la. ci ci ci koo xam yaa ngi yëngu ci aar. parce que aar du musique kese. aar tamit du du film kese. donc aar mën na ànd ak film. waaw mën na ànd ak théâtre comme xam nga mën na ànd ak lépp. bi ko waxee loolu vision yi bokk. ñëw d'accord pour ñëw ñëw fii pour liggéey gars yi. def ay yeneen façon film yoo xam bokk tak yi daan xam. te incha allah loolu daan ci teg seen bët. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. mooy pour pour waaw pour wane ne rek sëñ bi euh, bari na ay facettes. tey jii mënoon na. nekk ci li yi ngay yëngu mënoon na yëngu ci yooyu rek te bañ a nekk ci ñaan gi mais ñaan gi dafa nekk loo xamante ni tey dafa gis ni jaamu yàlla la parce sëñ Fall dafa waxoon jaamu yàlla ci jaam ñi moo xam ne lii xam la war na cee mën a jëriñ jaam ñi fii ñi fii ñëw bariwul ñi muy recevoir bariwul mais bu gisee ni diw jaaxle na te war na koo mën a dimbali tax mu recevoir ko jàppale ko sëñ bi lan ngay tëjee waaw xanaa di sant yàlla euh, di wax ne itam ñu ngi jégalu bu baax lépp lu ñu fi wax ñu dégg ko mm-hmm. nañ xam ne ab jaamu yàlla bu doon wax ak ay mbokki jaamu yàlla am lañ rek Euh, te liñ fi wax yëpp euh, bu dee njariñ la nañ xam ne du sunu alal alalu suñu borom la bañ na ko ba ñaan la tudd bu ñu moomoon duñ ko tudde ñaan kan la ñuy ñaan yàlla waaw kon nag nañ xam ne lépp yàlla la bu dee gis nañ ne lii am na solo bu buñ ci gis sama jëmm ji waaye nañ ci gis ne yàlla la euh, ñu koy santawaat yàlla bu baax a baax a baax bu dee gis nañ ne tamit du njariñ te nanguwuñ ko dañ koy nangu te xam ne àdduna ak looloo ànd euh, mënoo wax ñëpp d'accord lépp lu ñu wax waaye ñun doon doon waxe fi ñu xam rek xam-xam lañu doon wax waxuñu suñu waxi bopp euh, di sant yàlla euh, di julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suñu sëriñ suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi amiin te may ko wér di ñaanal yeneen xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp di ñaanal itam sa sa sa kii bii nga xam ne moom moo tudd ñu waxee TV mu egg fépp ci àdduna bi yow da ngay sama xaritu bopp gëla la sama bopp <laughs> kon lépp loo nekk ñun dañ ciy kontaan dañ ci sawar dañ ciy jàpp mm-hmm. moo tax ñoo ngi ñaan na law ba li nga ci bëgg lépp suñu borom defal la ci amiin yaa rabbi kawe sa njort te yàlla lafal la cat te may la wér yokk sa xewal amiin nañu lool ci dalal bi nga xamante ne tey moom la ñu dalal sëriñ Assane yu Nuurulaahi léeg-léeg sax ngeen dégg ma waate ko ñu naan kan la kii mooy sëriñ Assane yu Nuurulaahi di koo xamante ni yaakaar nañ ni ñun bëgguñu sax di dem ci loo xamante ni ah, tey maîtriser wuñu seen xam-xam foo gis ñu doxantu fa dem fa dañu koo ñeme parce que ñun duñu dugg ci loo xam ne tey jii bu ñu taseeg seen askan wi ñu daal di rus wala bu ñu tasee askan wi ñu di sëgg te kii dañu wóolu xam-xamam moo tax ñu tey ñu seet ko ngir mu waxtaan ak askan wi ngir mën leen a njariñ mbokk yi ñu ngi leen di jox dig dajee di leen jaajëfal bu baax a baax Ñooxi TV abonné et partagé nee naa ne saa su nekk rek damay doxantu te fu ma doxantu bu ma fa yeggee njariñ rek laa fay jëlee jërë ngeen